asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale euh, toute la ville en le samedi bu jot 10 jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji nag li nga xamante ni waxuma sax dëkk bi yëpp mais adduna yëpp moom la ñuy waxtaane euh, di virus boobule di coronavirus ñu daal di koy fas yéene waxtaane bi nga xamante ni am na ci adduna bi ba fi ñu toll ni mu nekk pandémie lu toll ci 11 300 mort am na euh, tey jii tamit wàllum koom-koom bi dina ko laal dina am ay conséquences yu bare bare yoo xamante ni euh, nit yi dinañ ko daal di dund ndax euh, jàngoro gile di coronavirus ngir amal waxtaan ci mbir mi moo waxal tey jii ñu dalal Cheikh Sadibou Diop nekk njiitu mouvement alerte di alliance libre et républicaine pour le travail et l'émergence ak kile di Mouhamadou Mbodj nekk agro agroéconomiste tamit ci biir waxtaan bi daañu ñu jël euh, ki nga xamante ni nag moom mooy euh, ab virologue la xam-xamam daal di màcc ci li nga xamante ni mooy virologie mu basé wu fële ci États-Unis ñu koy wax El Hadji Seydou mbay nekk euh, kon ca New York di ngeen dégg contribution bi nga xamante ni andi na ko pour leeralal leen lépp ci li nga xamante ni mooy jàngoro gile di coronavirus Cheikh bu Diop ñu ngi lay nuyu di la dara jàmm salaamaaleykum euh, madame Moreau maa ngi lay nuyu di la ziare di nuyu sama naataango monsieur Mbodj euh, di rafetlu jotaay bi torop euh, ak invitation voilà mi ngi noonu ñu koy remercier ci disponibilité am Mouhamadou Mbodj nekk agroéconomiste moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko dalal jàmm. salaamaaleykum Ndeye Comba maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu tamit sama naataango bi ma jàkkaar lool di nuyu bépp auditeur bu ñuy déglu. voilà ñu ngi noonu ñu leen di jaajëfal pour gagner du temps euh, jotoon nañu jël ki nga xamante ni moom laa leen doon wax sànq di El Hadji euh, Seydou euh, mbay nekk virologue bu basé wu fële ca New York comme ça ñu jël ko mu wax ñu ci jàngoro bi exactement su ko defee ñu mën a ñëw yaatal waxtaan bi ak suñuy invité El Hadj Seydou mbay nga nekk virologue sa xam-xam màcc ci wàllum virus euh, tey jii ñuy wax virusu euh, coronavirus wala Covid 19 tey jii sénégalais yi bëggoon xam exactement lan mooy coronavirus lan mooy Covid 19. Covid 19 benn virus la jàngoro benn doomu jàngoro boo xamee ni bu ndaw la bu bët mënul gis euh, gën a tuuti sax li naan microbe loolu la ñuy wax virus virus boobu noonu nag. Euh, bu bees la boo xamee ni amutoon ci suuf xamuñ ko woon bokk ci benn xeet boo xamee ni buñ naan euh, coronavirus léegi nag bi beneen façon la boo xamee ni ci xeetu coronavirus la bokk ñu tuddee coronavirus covid 19 voilà tey jii euh, Covid 19 bi gis nga ni mu amee am na ñuy wax ni sax virus bi euh, dañu ko sànni wala dafa daal di jóge ci ab euh, peut-être sax intervention boobu jot nga ko gis ñuy wax ni sax virus bi dañu ko sànni am na antidote et tout la loolu lan nga ñu ci mën a wax est-ce que virus bi dañ ko sànni wala sànniwuñ ko wala dafa nekk loo xam ne dafa ñëw naturellement. waaw loolu loolu moom yàlla yàlla pour l'instant moo ko xam mënuñ njortu ñaaw njortu wax exactement li am waaye daal liñ xam mooy ne virus bi nuróo naag ay virus yoo xam ne yuñ jot a gis yenn rabu àll yi waaw nekkoon na virus boo xam ne bu jógee si rabu àll yi mhm. léegi nag li bëri li yenn borom xam-xam yi wax dañ ni dafa jugee si rabu àll yi naturellement ñëw dugg si nit ñi waaw est-ce que boobaa nag daf dañ loxo loxo dese dugg wala loxo dugg ci loolu yàlla moo ko xam waaye lu jugee si rabu àll yi la ñëw dugg si nit ñi euh, ni ñuy jëfandikoo rabu àll yi di lekk te te ah, di di rabu àll yoo xam ne ni nekkuñ si kër yi si àll yi lañ nekk di di leen euh, di leen touché di leen jëfandikoo te jëfandikoo bi àndagut ak set loolu mu waral virus boobu muy doomu jàngoro boobu jugee si rabu àll yi ñëw dugg si nit ñi ba pare comment dirais-je est-ce que jàngoro boobu instant bi nee nañ amul euh, li nga xamante ni moom mooy saafara gis nañ ne am nañ fii au Sénégal lu toll ci euh, trente six wala sax léegi ñu yegg ci quarante cas yow lan nga mën a wax par rapport ak cas yooyu ñu yegg si tey ak tamit sénégalais yi déjà nga ñëw sax ci symptôme coronavirus bi ci boppam bala ñuy ñëw ci naka la ñu euh, mën a àndee méthode de prévention wala Sénégal naka la mën a jàmbaarlu ak Covid 19 nañ muy def ay ravage euh, ci dëkk yoo xamante ni ay dëkk yu développé lañ déjà lan mooy symptômes yi lan mooy wane ni kii am na coronavirus wala su ko yëgee ci yaramam mu njott ne am na ko mu dem euh, hôpital. Sénégal comme lu nga wax moo ci nekk ni ñu ngi jege si ñeent fukki cas euh, ba am nañ ay lu mat ñett wala juróomi cas yoo xam ne wér nañ loolu def loolu loolu normal la lu normal la parce que coronavirus nekkul ne ku dal rek da ngay dee déedéet lu toll si téeméer lu toll si juróom-ñett fukk yi bu leen dalee mën nañ ciy génn ñu wér waaw mën nañ cee génn ñu wér te duñ dee léegi nag si ñaar fukk yi nga gis ay peu juróom ñoo xamee ni mën nañoo am ay cas yoo xamee ni dafay dafay dafay grave parce que lu koy waral mooy nit ki dafay dafay soit mu màgget néew doole wala mu nekk dafa amoon yeneen feebar euh, boo nga xamee ni système immunitaire am yaramam day néew kattan bu mën a xeer jàngoro bi wala mu nekk koo xamee ni coronavirus bi da koo dal lu yàgg dem ba ko ba sonal ko lool mu dóor a ñëw ñu koy dóor a gis kooku mën na sonn après mën na jaaree na mën a dee ñiy dee si coronavirus ñu leen xaymaa si àdduna bi téeméer ñoo jël ñaar ba ñett kese ñoo siy dee waaw ñoo siy dee ñenn ñi nag dinañ yàgg hôpital lu toll comme juróom eh, yi ma wax juróom-ñett fukki ñoom dañuy gaaw wér ñoom ñoom duñ yàgg facilement seen yaram am na kàttan bu fekkee ne ay ndaw lañ wala ñu am kàttan mën nañoo wér waaw léegi nag bu fekkee ne euh, le fekk que Sénégal wéral loolu loolu loolu normal la mooy ne euh, cas yu jot a wér peut ba ñuy ñëw ñu dañoo feebar dëgg ba tëdd ba sonn lool donc euh, suñ médecin yi am euh, am nañ xarañ boo xam ni cas yooyu ñoom dinañ ci teel a jug ba euh, duñ ñooñu duñ gaaw a sonn bay dee waaw léegi bu fekkee ne symptômes yi. Hmm. liy waral ñu ne kii kat coronavirus la. loolu mënoo gis nit rek nga ne corona dafa am coronavirus. loolu il faut que spécialistes yi saytu ko ci laboratoire yi ba xam comme lu mel ni Institut Pasteur ba xam ndax coronavirus la wala beneen xeetu jàngoro la parce que nu muy manifesté woo di feeñ ci nit ki dafay nuroog yeneen xeetu jàngooro mooy li mel lan mooy nit ki day mel ni dafa siburu day mel ni yaramam dafa siburu tàngoor bi day day yokku yaram bi day tàng lool muy ñàkk ah loolu kii donc kooku euh, si lu mel ni siburu day wane loolu waaw donc nit ñu tul ne bu baa yaramam dafa tàng rek nga ne coronavirus ñaareel bi mën a nekk nit kuy sakkat ah di sakkat sakkat bu bu bu kii bu jugee si kii léegi sakkat boobu noonu tamit gis nañ fi ay sakkat yu bëri ay soj yeneen ak yeneen mais ba tey bokkut ak socc mu tax ma ngeen gis nit rek mu am euh, feebar ni wala kii da ngeen a coronavirus képp ku ngeen gis mu feebar nekk seen seen entourage nekk sa njaboot wala sa jabar wala sa yaay wala sa mag sa rak sa jëkkër sa doom nga yëg ne am na feebar bul fa nekk di lijjanti li yëg li yëg li jéem a nga jël distance nga xaw koo sori tuuti bàyyi ko moom mu nekk si néeg bi moom kese nga oote numéro vert bu ñu xamante ni réew mi joxe nañ ko ah bu ko defee spécialiste bu ñu ñëwee euh, bu ñu xoolee dinañ ñoom dinañ mën a xam ndax coronavirus la wala ndax beneen feet xeetu feebar la te tamit ku si feebar ku ne bu leen ko jank-jankee noonu rek yóbbu hôpital déedéet bu fekkee dafa am si signe yooyu feebar wala wala muy saqat oo leen insister leen bu fekkee numéro vert bi sax doxul insister leen ngeen laajte téléphone ba baax ngeen am euh, cellule d'alerte bi bu ko defee ñoom dinañ ñëw xool xool ki lan moo ko jot bu fekkee ne coronavirus la ñoom dinañ ko mettre si condition yoo xam ne ni dugal ko si ay ay ay ay ay ay kii yoo xam ne c'est spécialisé ko transporter yóbbu ko euh, hôpital te virus bi du law waaw. voilà léegi euh, monsieur mbay docteur mbay léegi est-ce que lu ñu teg gis nga Sénégal teg nañ ab système de défense pour moytu euh, coronavirus est-ce que jàpp nga ni système bi ñu teg baax na walla baaxul. waaw waaw xam nga euh, en prévention lu ñaan euh, prévention fagaru fagaru c'est-à-dire lépp lu lu jot rek da ko war a def sa jotee bul xaar parfois ba mu yéex nga di ko door a def bo mën na baax waaye peut-être bu teeloon mooy gën waaw euh, fagaru yu ñu jël nii man dama koy rafal dama naan lu baax la yenn fagaru yi dama naan lu baax la waaye euh, lenn rek moo ci nekk mooy xamaguñu réew mi man man ba léegi si loolu laa nekk. Mhm. nekkul ne fanweer ak ñetti fanweer ak ñett wala fan wala jëm ñeen fukk yi rek ñoom ñoo am coronavirus pour man mën naa am yàlla mën naa am am ñeneen ñu ko am si réew mi ñoo xam ni xamuñ leen. te ñu ngi circuler donc loolu moom mooy risque bi bu fekkee ne nag foofu rek la yem euh, te ñu jël mesures donc kon damay wax ne baax la. voilà gis nañ fi tey kaawu itali parce que bu ñu jógee Chine itali sax ni gi ni démb raw na euh, ci ñu faatu ci Covid 19 euh, maanaam am na plus de trois euh, trois mille morts wala lu ko ëpp ba dem ba raw Chine ba nga xamante ni fa la feebar ba bàyyeekoo lan nga ñu mën a wax ci cas bi nga xamante ni actuellement moo am Italie nga xam ne médecins yi ñoom si seen bopp sax dañu jaaxle. waaw loolu loo loolu loolu man jot naa see eh, jot naa see gis ay publication mais même jotuma ko vérifier pour pour pour pour pour xam kii mooy ne ñenn ñi dañoo dañoo wax ne virus bu bu amoon Chine ba mu ñëwee euh, Europe dafa muté mooy dafa dafa gën a dafa gën a virulent dafa gën a. am doole euh, ñàng. Hmm. waaw dafa gën a soxor dafa gën a soxor ba mu nekkee Chine soxoroon na di rey waaye ba mu jugee Chine ñëw dugg si population européenne yi muy tubaab yi moom virus bi dafa gën a ñàng dafa dafa am dafa dafa changé forme ñàng boobu moom moo waral ñi siy dee gën a bëri waaw ñi siy dee gën a bëri. donc euh, loolu ay ay information yu ñu def mais comme que adduna bi fi mu toll nii ñëpp ñu ko seen da day génne information dangay dem ba parce que amuñ temps di ko def publication scientifique mhm. publication scientifique boo xam dañ koy prouver nga mën ko vérifier scientifiquement xam ne dañ euh, koo kii day nekk ay données yoo xam ni ay souvent yenn baram xam-xam ñooy génn te doo seen xam-xam parce que bu ñu nee ñoom ay docteur lañ wala ay professeur lañ yooyu noonu boobaa da am njort rek ne peut-être li ñuy wax na waaw donc euh, loolu am na mën na mën na nekk mën na nekk na virus bi dafa gën a soxor. Mhm. moo tax euh, malgré que Italie euh, nekk ci Europe am système de santé bu gën a bu développé. teewul ñu muy ñu muy dal di leen rey dafay bëri parce que comme dal ku ne pour ñu mën la sauver day jafe. si sa wàllu xam-xam tey jii li nekk ci bopp àddu nit nitu àdduna bi yëpp wala si bopp sénégalais moom mooy est-ce que am nañ vaccin contre virus bi est-ce que am nañ antidote ainsi de suite en tant que virologue est-ce que wala ci ban moment la ñu mën a am loo xamante ni mooy faj carrément euh, coronavirus parce que dañuy dégg spécialiste yi ne amaguñ lu ko faj juste que euh, bu malaat bi ñëwee dañuy xool symptômes yi mu am ñu xoola euh, defal ko traitement bu adapté wu ak symptômes yooyu tey ji yow en tant que virologue ci ban temps dans combien de temps un mois deux mois douze mois euh, deux ans trois ans ci lañ mën a am li nga xamante ni mooy vaccin contre le Covid-19 waaw waaw waaw pour mën a léegi faj euh, feebar bi euh, damay wax rek comme ça li kii duma wax ne euh, traitement am na nit ñi dañ koo denc loolu duma ko wax parce que wóoruma ah li may wax mooy ne bu fekkee ne amuñ kii ni dañoo bëgg a defar vaccin ak njëlbeen bañ commencé pour ñu mën a defar vaccin bi ba vaccin bi pare ba efficace bañ prouvé ne efficace na man na faj askan bi yëpp loolu dina jël lu mu néew néew benn at benn at yàlla nag mën na def mu gën a néew ñu am ko si lu jege six ba six mois ba ba euh, ba juróom-benn weer ba fukki weer ak juróom-ñett waaw waaw loolu ci xarañ xarañ bi ñuy xarañ. ak hmm. euh, sens bi ñuy am ba mën a affaire bi mën a gaaw waaye daal lu néew néew néew. si liñ eh, jàpp ne war fii kat daal war ñoo mën am benn vaccin. yéen ñu ngi bu yàlla defee nag lu. yéen virologue yéen a ngi ci yow actuellement ma ne actuellement yow yaa ngi ciy gëstu waaw waaw actuellement am na ay laboratoire yu bëri lu toll si presque lu jege fanweeri laboratoire si àdduna bi yoo xam ne ni euh, OMS agré ak accrédité na leen ah bu ko defee ñoom ñi ngi nekk di ci gëstu di kenn ku nekk ak euh, xarañ ba nga am ak moyen ya nga am pour mën a trouver vaccin li mu gën a gaawee léegi nag am na vaccin yoo xam ne ñoom commencé nañ di leen di leen testé comme fii si États-Unis ah, depuis une semaine am na vaccin yoo xam ne commencé nañ ko di xool seen efficace am na yeneen dëkk aussi yu commencé di def ci clinique yi di xool efficace yu vaccin yi loolu day jël temps le que ñu vacciné ñu bëree bëri bëri après door a gëstu xool ndax liñ vacciné est ce que baax looloo tax muy xaw a jël temps waaye nit ñi euh, yenn borom xam-xam yu bëri si àdduna bi. dugg nañ ci mi ngi noonu ngeen dégg ko mu nekk virologue El Hadj Seydou Mbaye docteur. Euh, Sadibou Diop Cheikh Sadibou dama lay laaj euh, dégg nga euh, virologue bi li mu wax ñoom seen xam-xam dafa màcc ci wàllum virus carrément tey ji li mu expliqué est-ce que yow jàpp nga ni ak situation bi am ci àdduna bi Sénégal mën na xeex ak jàngoro bi est-ce que jàpp nga ko. waaw jërëjëf soxna si. li ma jàpp d'abord mooy. Mhm. ki doon wax dafa nekk ci domaine am. Mhm. virologue la kon xam-xamam. kenn du ko naatable ndax Sénégal nag mën na xeex ak virus bi waaw waaw mën na xeex ak moom. waaw mën na xeex ak moom peut-il waaw Sénégal mën na faire face. ayca ñu déglu la naka la koy defee. Mhm. mooy ñëpp xam nañ ni que mesure d'hygiène primaire yi. Mhm. bu ko ku nekk ci ñun respecte nguur gi li ma leen di contre yëpp li ñu joxe comme indication bu nekkee topp nañ ko amaana sénégalais yi mën nañ ci rëcc parce que jusqu'à présent boo seetloo ci planète bi réew yi nga xam ni ñu ngi contrôler virus bi mooy réew yi nga xam ni non seulement dañuy respecter principe yi nga xam ni nguur gi mi ngi koy édicté ak respecter les mesures d'hygiène primaire euh, Sénégal euh, yar mm-hmm. am na fi man jàpp naa ko euh, te tey ñi ngi jàkkaarloo ak problème boo xam ne ñun ñëpp foog ñu booloo doon benn pour xeex ko te sénégalais comme ni ko wolof Njaay di waxee dañoo mën bës mhm. mën bës boobu nag tax na tey ku nekk fàtte nga fa nga jóge foo bokk lenn rek la ñor mooy Sénégal a soxla ay doomam te bi mu soxlaa ay doomam ñëpp dañoo war a jóg taxaw nekk benn pour jàmbaarloo ak virus bi. kon jàpp nga ni mesures yi gouvernement bi teg ci wàllum euh, comment dirais-je hygiène. Mhm. su fekkee ak tamit ci wàllum disipline mhm. tamit bu fekkee sénégalais respecté nañ ko euh, mën nañu daan jàngoro bi. waaw non seulement loolu laa jàpp. Mhm. mais li ma bëgg fàttali nit ñi mooy. décision yi nga xam ni guddi yi ñu toll nguur gi mi ngi koy jël dafa am au sein du palais lu ñuy woowee comité de crise ay borom xam-xam ay docteurs yu seen xam-xam màcc ci pac ay généraux yoo xam ni seen xam-xam dafa màcc ci sécurité mhm. euh, service du commerce pour ñu mun a évaluer denrée yi fi nekk saytu mhm. ko càmbar ko maanaam lépp lu ñu def du seen coobare bopp lu ñu gëstu la xalaat ko xelli ko saytu ko ba mu wóor leen ni lii dina njëriñ réew mi moo tax ñu jël ko et ci yeneen réew yi loolu moo fam mhm. fi mu nekk nii euh, mun naa wax ni ñun ñëpp ñooy bokk di xalaat di xelleendoo waaye nguur gi fa mu ñuy orienté ñun ñëpp fa la ñuy. mais am na ñu euh, en fait moom la ñu déclaré démb officiellement euh, ministre de la santé et de l' action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ne 47 cas confirmés on a à peu entre guillemets cinq guéris am na ñuy wax ni sax kaa euh, yi ëpp na loolu mais nguur gi waxul sénégal yi dëgg. waaw sénégalais dañu war a bàyyi di def. Hmm. météo ci lu ne. lii dafa sérieux torop la question est trop sérieuse pour être politisée wala ñu koy booleeg polémique. Mhm. xaju fi li tax xaju fi mooy réew bu ndóol lañu lu dul discipline moo ñu mun a dimbali pour ñu génn ci situation bi ba pare dafa am lu ñuy wooyee communication de crise mhm. ñun nañu yem ci li ñu nguur gi wax ñu gëm ko ñu topp ci loolu la sénégalais bu nekk war a woote tey sens de la responsabilité boobu mhm. muy am na ñuy génne ay 100 cas di ko tas ci réseaux sociaux yi. li ñuy wax dara du ci dëgg man li nguur gi wax laa gëm tey moom laa gëm ëllëg te moom laay invité ñeneen ñi ñu gëm ko ñu topp ko sens de la responsabilité boobu. Mhm. man yéen ñi ne bokk mais presse bi. Mhm. Euh, monsieur Mbodj mon co-débatteur. Mhm. Idrissa Seck. Ousmane Sonko ñun ñëpp ñoo war a nekk dans cette même dynamique pour faire face au fléau. dafa am un temps pour tout. Mm-hmm. lii du temps wu polémique du temps wu politique. léegi jàkka yi ñu tëj Cheikh Sadibou am na. ñuy reposé à côté euh, gis nga bus yi léegi nangootuñ ko surchargé oto yi ainsi de suite naka ngisee loolu tere nañ rassemblement yi soir yi boîte yi ainsi de suite am na ñu taxaw euh, di def sax comment dirais-je ay euh, dajale xaalis téléthon plutôt pour dajale xaalis pour jàppale nguur gi naka nga gisee lool surtout tamit jumaa yi ñu tëj am tamit ñu taxawee si wet gi ne ñoom dañuy continuer amal seeni prière li ma jàpp mooy mhm. Euh, sëriñ Abdul Aziz si Dabaax radiallahu taala anhu dafa am lu mu doon wax mhm. mu ne alxaanuunu fawqal kulli bu ma juumulee njabootam ak may déglu mooy xutba bi mu mujj def wala waxtaan bi mu mujj def ndakaaru à Dakar balaa muy génn àdduna mi ngi ko defee woon zawiya Seydi Hadji jamono jooju déjà moom dafa doon wax laa luwaa doit être au-dessus de tout le loolu lay tekki nguur gi décision bi ñu jël pour tëj jàkka yi man Cheikh bu Diop ñun waa alerte dañu ci ànd à cent pour cent nañu teg fële suñu foi ça n'a rien à voir l'état est laïque amul benn état bu musa a chercher ne serait-ce qu'un à affaiblir foi wu nit ñi à situation nouvelle comportement nouveau la gravité de la situation moo waral nguur gi dam ba xalaat ni dañu war a tëj jàkka yi ki tëj jàkka yi kan la ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di taalibe murit saadix amul lu ko gënal li muy def gënalu ko pour lan nit ñi bëgg ci ay détails mhm. Aly bu sañoon du tëj jumaa ji wallahi bu ko sañoon ñëppay dem julli ji waaye feebar bi sot na feebar bi bëri na pexe bari pexe boo xam ni Et je me base sur les propos du professeur de médecine mhm. Célestine Furtado mhm. sénégalais résident en Suisse nee na feebar bi moo gën a intelligent intelligence artificielle mhm. professeur Furtado kon nañu xam ni nguur gi bu nee day tëj jàkka yi wallaahi dafa ñu li leen gënal waaye ñàkk pexe la te may ñaan nit ñi ñu ànd ci respecter décision boobu ndax loolu mooy li ñuy sauver pour bañ a li waa Italie di dund loolu mooy li ñuy muccal mhm. sànq ba tey maa ngi leen di wax sens de la responsabilité ku ci nekk boo tëjoo sa kër mën nga fa jàpp mais yéen lu ngeen def pour euh, jàpp ci xeex bi jàppale nguur gi sensibiliser ñi nga xamante ni dafa mel ni seen bopp yi dara mënu ci dugg pourtant depuis démb mhm. ñi ngi ci tali bi mhm. ñi ngi joxe ay gel hydroalcoolisé gratuitement ba pare ñi ngi communique sénégalais yi pour gën leen sensibiliser pour ñu respecter les principes di d'hygiène mhm. publique mhm. maanaam raxasu respecter distance un mètre euh, des seen kër bu nekkee amuñu lu ñu def euh, may waxaat rek nit ñi jàkka yi ñu tëj ñu ko def benn problème yàlla ci xolu doomu aadama lay nekk mhm. te jullit bi fu mu nekk bu nekkee pas-pasam wér na mën na fa jaamu yàlla ñi tëj jàkka yi tey lii gënalu leen tey lii gënalu leen ëllëg loolu bu ci kenn sukkandiku pour indi fantasiro diggante sénégalais ndax c'est pas le voilà euh, kon kooku di Cheikh Sadibou Diop bu mouvement alerte ñu ñëw ak suñu agro agroéconomiste Mouhamadou Mbodj euh, tey jii sax pour gagner du temps parce que temps bi bariwul dañ lay laaj directement ci sa domaine parce que gis nga euh, coronavirus ravage yi mu commencé def en Chine en Italie en France Iran ñëw commencé laal Afrique déjà mu am ay mesure yoo xamante ni pratiquement particulièrement wala gouvernement au Sénégal jël na ko gis nga AIBD pratiquement dañ ko tëj vol dematul vol ñëwatul gis nga activité économique yu baree bari euh, dafa taxaw euh, bañ gis ni sax euh, nee nañ boo moytul vingt cinq millions de chômeurs li lee di coronavirus dana ko indi ko gis ni boo demee fu mel ni Italie France kenn génnatul génn bi c'est juste pour dem jëndi loo lekk wala dem pharmacie wara dem hôpital tey ji économiquement coronavirus lan la ñu mën a jural muy jamono bi nga xam ne ñu ngi dund coronavirus muy tamit suñu si yàlla génnee après coronavirus Ndeye Comba euh, maa ngi lay jaajëfalaat ci question bi mhm. amaana ci diir bu gàtt dina métti ñu wax ñu répondre question yi nga posé correctement mm-hmm. mais dinañ jéem mm-hmm. ci anam yi nga xam ni euh, mën nañ cee jéem mm-hmm. tënk pour que sénégalais yi comprendre ni mu war mën demee may jaajëfal sama co débat sama co parce que tamit wax na lu am solo mooy que temps bi nekkul temps wu polémique nekkul temps wu jiixi jaaxa wala ay guerre politique temps la boo xam ne ñun ñëpp dañu war def bloc pour faire face à pour faire face à un fléau boo xam exactement c'est mondial pour en venir à votre question euh, balaa may ñëw ci kaaw Sénégal dañuy dañuy jàngat tuuti architecture euh, économique mondiale. Mhm. Chine dafa nekk dëkk boo xam ne dafa am solo lool ci économie mondiale. Mhm. la Chine moom kese euh, boo xoolee ci wàllum PIB. c'est mhm. vingt pour cent du PIB mondial. Mhm. mais boo ci boo jugee ci loolu aussi. Mhm. mën nañ jàpp Chine mooy usine du monde bi. maanaam lépp loo xam ne dañ ko war a defar ci lu ci lu nit di jëfandikoo dans son quotidien pratiquement Chine lay jógee. donc mu nekk dëkk boo xam ne manufacturièrement parlant euh, li nga xam ni euh, ñu ngi koy def ci wàllum koom am na solo lool. donc Chine boobu noonu tey économie boobu bu fekkee ne ah, ah, sooxee na. monde bi yëpp dañ koy yëkk mhm. monde bi dañ koy yëg ci li ñuy woowee ñun benn crise de la production. Mhm. parce que bu fekkee ni le principal euh, grossiste du monde moom dafa am problème. donc ay détaillants yi naturellement dañuy am problème donc Chine nekk ci période boo xam ni euh, métti na lool euh, te jàpp nañ ni tamit que fii ay weer ci fii ak weer yi ñëw reprise bi dina métti lool. Mhm. boo jugee si Chine nga ñëw en Europe. Europe nekk épicentre li ñu woowee finance mondiale. finance euh, internationale moo tax may wax. Mm-hmm. maanaam li jëm ci peut-être dëkk di financer beneen dëkk wala organisme bu mu mën di doon maanaam kiy def crédit bail wala kiy def wala ki nga xam ne dañ ko catégoriser 3A nga xam ne ay taux de prêt préférentiel lay aale yenn dëkk yi. Mm-hmm. nekk épicentre Europe. Europe di vivre tey hormis ñoom tamit seen crise de production benn crise financière boo xam ne jégg na dayoo jàpp nañ ni semaine dernière. ci ay exemple yu joxe juste la bourse de Paris dafa perdre vingt cinq points hmm. bourse euh, la bourse de Berlin aussi hmm. perdre ay point yu am importance hmm. ñu jóge foofu noonu ñëw début de semaine bii ni passé euh, Paris perdre douze points Londres aussi perdre onze points Londres gën na perdre onze points depuis euh, deux mille huit léegi lan moo waral ñu perdre ñoom point yooyu noonu li koy waral tamit am na trait ak lu ñu woowee production crise de production bi nga xam ni wax naa ko ci njëlbeen ci sama njëlbeen action wu ci ci biir bourse buñ koy buñ koy côté résultat au société bi daf ciy bokk. Mhm. te vu que instant yi lépp teg a lépp a taxaw donc société yi du ñu def résultat bu ñu deful résultat dafay répercuté wu ci valeur action yi nga xam ne dañ koy jënd ci biir bourse bi. Mhm. mais aussi ci biir bourse bi dafay am benn loi bu ñu woowee la loi de l'offre et de la demande. Mhm. man mi nga xam ne trader la yor naa action wu supposons euh, benn entreprise bu fekkee ni euh, en période de flou maanaam que monde bi am na période boo xam ni ñu ngi jiixi jaaxa dara leerul. Euh, sama premier réflexe mooy damay jéem a jaay loolu donc ñun ñëpp muñ jéemandoo jaay ñi jënd du ñu xaw a bëri hmm. donc chose ki fekk que valeurs yi dañuy wàcc ba effondrement boursier bi nga xam ni am effondrement boursier bi nga xam ni am na en Europe léegi environnement boursier boobu noonu aussi dafay dafay taxawloo lu bëri. Mhm. parce que déjà institut financier international yooyu nga xam ni la plupart du temps ñoom ñooy jur suñu banque yu ndaw yi wala ñoom ñooy influence suñu suñu yu ndaw yi ñoom tam dañuy taxaw. Mhm. mais bu ñu juree ci loolu dafa am pàcc tam bu am importance bu ñu du ñu woowee le forex. Mhm. maanaam le marché financier international le marché des monnaies marché des monnaies boobu noonu tamit bu monnaie monnaie dañuy perdre seen valeur actuellement à l'heure où en train de parler ci forex bi jàpp nañ ne ñaari valeur refuge mooy am mm-hmm. mooy le yen ak le franc suisse mm-hmm. ñaari valeur refuge yooyu am mm-hmm. parce que dollar beeg euro bi amatuñu benn garantie bi parce que dañu volatile trop actuellement donc euh, nga jóge foofu noonu wàcc Sénégal Sénégal nekk dëkk boo xam ne dafa dépendant fortement de l'extérieur. Mhm. jàpp nañ ne ñun li ñuy importer chaque année di ko dugal Sénégal pour mën ci dund pour mën ci solu pour mën ci def li nga xam ne bëgg nañ ko maanaam pour mën a pour que dëkk bi mën a dox mu ngi toll ci quatre mille milliards. Mhm. donc crise de production bu amee fële na am en Asie. Mhm. am en Europe. ñun dañuy am lu ñu woowee dañuy dem ci li ñuy woowee benn crise de la demande. la demande nationale parce que je le quatre mille milliards la ñuy importer chaque année pour que dëkk bi mën dox léegi donc première conséquence bi nii fii euh, tuuti. Mhm. mooy nekk crise de la demande boobu noonu. Mhm. mais gouvernement bi ñu ngi rassuré dañu wax ni amaanaa que am nañ ay réserve yu toll ci trois mois d' approvisionnement. Mhm. ñu ngi toog xaar ba xam ndax am nañ trois mois d' approvisionnement ou pas. maintenant deuxième conséquence xam nga loolu conséquence sociale la. léegi mën na jàpp aussi que ne mën na am ay conséquences économiques ci poñ yu bëri. Euh, ñu jël par secteur. sànq wax nga ko ci njalbeen euh, dañu nekk ci li woowee actuellement saison touristique mhm. saison touristique au Sénégal mu ngi commencé novembre jëm juin léegi nga am euh, le secteur hôtelier bi nga xam ne 7 pour cent la tamit ci PIB bi 7 pour cent ci PIB boo xam ne ñoom jotoon nañ def seen ay provision jotoon def seen ay simulation de résultats léegi ñoom actuellement vu que tourisme bi doxul parce que nit ñi dematuñu ñëwatuñu mhm. ñoom tamit dañuy dund mhm. euh, ay guddi yu métti. Mm-hmm. d' dégg naa ni la semaine dernière xaw ma y' a quelques jours de cela que le Lamantin Beach dafa dafa décider tëj hôtelam. parce que doxatul. Mm-hmm. donc nga am secteur boo xam ne tey. Euh, en, en termes d'emploi, il y a 10 000 qui sont, 10 000 emplois directs qui sont menacés vingt et un mille emplois indirects aussi qui sont menacés parce que dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañu dañu dépendre ci ñaari secteurs yi nii mooy mm. aéroport mm. mooy transport aérien ak tourisme mooy agence de voyage yi assurance et tout là qui part avec mm. donc ñoon tamit dañuy am problème boo jógee ci ci secteur boobu noonu aussi nga am euh, ci le secteur primaire le secteur secondaire et le secteur tertiaire des mm-hmm. problèmes mm-hmm. Euh, le primaire le primaire boo xoolee boo xool mooy béy bi béy bi dafa amoon solo lool ci suñuy wàllum exportation ak mhm. même jënd bi mhm. mais tey bu fekkee ni tey euh, la Chine euh, la Chine di mos autant pour moi excusez mhm. Chine mi nga xam ne fa la yóbbu lu bëri ñoom dañuy am problème donc bu su béykat bi jëndee ba pare reprise bi buy ñëw dina metti que moom mu yóbbu Chine wala mu yóbbu feneen idem pour aussi kii napp doon doon exporter tout le temps maintenant secondaire bi aussi ñi nga xam ne dañ doon liggéey dans la plupart du temps ay matières premières Mm-hmm. parce que Chine bi ma la wax sànq naan la moo nekk du PIB. Mm-hmm. ñoom ñooy jël trente pour cent de la consommation de matières premières au niveau mondial. Mm-hmm. donc ñoom marché bi soo ko xaajee euh, plus du quart si ñoom la jëm donc suñu amee problème aussi ñeneen ñi dañuy am problème. maanaam coronavirus lépp la taxawal. Euh, coronavirus lépp la taxawal léegi. nga ñëwaat ci ñun suñu secteur tertiaire suñu secteur tertiaire amaana benn exemple kese laa jël mooy euh, l' exemple de nos banques. parce que bu fekkee am benn copain fan yii passé euh, barkaati démb di ma suusan pour mm-hmm. bi mu demee di leb euh, benn somme boo xam ne da ko soxla woon mu ne ma booy si la pour la première fois on m'a posé mhm. énormément de questions ma ne ko c'est normal. Mhm. parce que banques yi fi mu toll nii seen xel delluñu. Mhm. Euh, suñu banque yi dañu amoon pour habitude di financer des activités exportatrices. loolu kese lañ doon def parce que bëgguñu woon di jël yenn risques yi. Euh, information yi euh, au niveau du des particuliers leerul torop ce faisant duñu mën jël yenn risques yi mais tey. gisuñu ku ñu financer pour yenn exportation yi donc du coup vu que bi leerul dañuy taxaw def lu ñuy woowee thésaurisation maanaam mhm. euh, rétention wu capital bi nga xam ne ñoom yor nañ ko mais loolu tamit dafay tàggatémbe ci économie bi après parce que dafay am problème exactement donc ay répercussions la yoo xam ni au final au niveau cadrage macroéconomique est-ce que est-ce état bi dina mën a fay ay salaire fa laa doon jëm ak yow mhm. euh, euh, cadrage au niveau économique mhm. dafay jur yenn problème yi problème yi muy jur dina ci bokk tey l'État prévision yi mu defoon en mm-hmm. termes de croissance déjà du am. du am dafay chuter c'est sûr. Mm-hmm. mën nañ am euh, une chute d'un point cinq jëm trois points mais bu ñu jógee ci prévision de croissance yooyu yooyu noonu nga xam ne du am tey même dans le cadrage budgétaire l'État du Sénégal c'est deux mille cinq cent de recettes fiscales deux de recettes fiscales yooyu noonu dafay wàcc. dafay wàcc pour la simple et bonne raison que ni l'activité commerciale va connaître un frein pour la simple et bonne raison que ni l'activité euh, industrielle va connaître un frein pour la simple et bonne raison qu'un secteur comme le tourisme tey ak situation yi ñu dund doo leen di teg impôt hmm. non au contraire da nga leen di bal boo jógee ci cadrage macro euh, euh, boo jugee ci cadrage boobu nga xam ne c'est par rapport ak l'exécution ak l'exécution budgétaire hmm. euh, nga jëm ci PIB bi wax naa sànq ne croissance bi day wàcc croissance bi day wàcc pour la simple et bonne raison aussi que au niveau PIB global nee naa demande bi day wàcc bu demande bi wàccee investissement yi wàcc normal que ni PIB globalement bi wàcc loolu la ñuy woowee en économie récession économique Mhm. parce que ce sera un recul du PIB donc maanaam daal en euh, coronavirus coronavirus bi tey. Mhm. Euh, ci ci wàllum koom dafa nar taxawal dëkk bi nii. Mhm. maintenant il faut bi. àdduna bi àdduna bi àdduna bi dans un premier temps ah, mais dëkk bi dans un second temps ñi mu ni muy taxawalee ñële sax du ñu ko taxawalee parce que aussi c' est des euh, analyse bi dañ koy def ci ay échelle graduelle différente mm-hmm. d' am na benn jàngat boo xam ni xamaanaa amaanaa yàgg na touti bi ko Abdoulaye Wade defee euh, doon génnee ci ci période bi muy def thèse mm-hmm. économique am mm-hmm. euh, doon génnee benn benn principe économique bu mu doon woowee principe de réciprocité si je m'abuse ou un truc du genre. Mhm. mu ngi doon natt moom à échelle différentielle euh, impact économique yi nga xam impact économique aussi bien positif euh, aussi bien positif que négatif yi nga xam ni dëkk yu mag yi bu ñu ko amee euh, dina mën dal à échelle graduelle ci. Euh, ci dëkk yu ndaw yi nga xam ni euh, mm-hmm. comme ñun lañ mel mm-hmm. parce que tamit on le rappelle nous sommes un pays à revenu déficitaire nous sommes un pays boo xam ni euh, ci PMA la ñu classé les pays les moins avancés du monde donc nous sommes benn dëkk lañ boo xam ni ci wàllum koom taxawuñu noonu lool donc lu laal ñële mm-hmm. dinañu laal te ñu rappeler aussi dans le sens global que ni ci nous sommes dans un monde globalisé. globalisé. et que frontière amatul. Mhm. libre circulation am na l'économie de marché est une réalité une très grande réalité donc mënatuñu euh, sangu juste suñu mbàjj toog suñu coin di xaar leen naan ñun bokkuñu si non lu dal kële yow da ngay toog naan kañ la lay dal ak nan la lay dalee nga anticiper pour mën a euh, génne ay solution voilà ñuy dem ci mm-hmm. Sadiou juste une minute plus tôt mm-hmm. est-ce que ñuy wax ni yenn denrées yi ñuy gën a soxla dafay manqué mm-hmm. dina am wala déet wala tamit yokk gi ñuy wax loo si répond juste quelques secondes ñu dem si Sadiou xam nga yokk yi ñu ngi koy teg ci wàllum spéculation loolu c'est un comportement humain ak denrées yi nga xam ne si kanam tuuti dootul euh, am euh, waxoon naa ko nee la crise de production dafay am. crise de mm. production bu amee. ki mais ma famine du fi am. bon. Euh, mm. am na ñu ne. Mhm. famine bi amoon mille 2008. Mhm. Euh, mën nañ dund bu ko raw. Mhm. Euh, et c' est justifié sànq nee naa la crise de la demande nationale dafay am. boo déggee maanaam ñu ne ñu naan demande nationale maanaam li nga xam ni sénégalais yi dinañ ko soxla pour dund sénégalais yi dinañ ko soxla pour euh, li ñu jëfandikoo. ci ci at bi. crise boobu noonu boo amee maanaam mooy donc ci famine lañ jëm. léegi nan nan la ñu war a mën def tey amaanaa ba. ba parer à cela. waaw dañu siy ñëw ci solution yi peut-être foofu la ñuy tëjee. c'est une grande question d'accord voilà euh, Cheikh euh, gis nga euh, état bi jël na ay mesures mesures yu bari na mu nekk ay mesures d'hygiène jël na tamit beneen mesure bu xaw a radicale moom mooy dafa daal di tëj li nga xamante ni mooy aéroport international Blaise Diagne avion dootul dem avion dootul wàcc naka gisee mesure boobu mu nekk lu radical. waaw xam nga mooy li ma la waxoon sànq rek. Mhm. à situation nouvelle comportement nouveau mm. euh, Sénégal nekkul benn îlot mm-hmm. Sénégal dafa nekk euh, comme ni ko monsieur Mbodj waxee d'ailleurs mm-hmm. et pertinemment mm-hmm. dans un village planétaire euh, et décision bu yeneen dëkk yi yi nga xam ni dañuy jàkkaarloog coronavirus jël bu nekkee seen bonne décision Sénégal da koy appliquer te bu ngeen seetloo cas yi ñu njëkkam yëpp porte d'entrée bi AIBD loolu cas yi ñu am yëpp. ay cas importé waaw mhm. mais léegi nañu tëj AIBD augmenter rigueur des contrôles au niveau de frontières terrestres et maritimes ñu xool. tëj AIBD dans combien de temps bu xawee yàgg gis nga euh, mbooj li mu wax. ci wàllum kom koom d'accord naa dañu nekk ci monde globalisé dem dikk. mais nangu naa mais on n'a pas le choix. Mhm. c'est dañu amul choix. fi mu nekk ni sauvons les vies humaines d'abord. conséquence économique yi aw ma lu mu ciy dindi. parce que nee tamit kaay bu bënee bëri Sénégal du ko mën a gérer. mais moo tax ma ne la. Mhm. sauvons les vies humaines d' abord. bu nekkee sauver les vies humaines mooy tëj aéroport AIBD euh, contrôler frontières terrestres yi ak maritimes yi mooy aller jusqu'à la restriction de libertés qu'à cela ne kon yow décision boobu d' accord nga ci. mais non seulement dama ci d' accord mais damay applaudir ma ci d' accord. Mhm. situation bi ñu toll tey. Mhm. moo. soxla des mesures allant dans le sens même dans le sens contraire de nos libertés mm-hmm. tey ñun ñi ku nekk yaa ngi koy ngun-nguni ñi ngi wax confinement mm-hmm. ñi ngi wax euh, état d'urgence ñi ngi wax couvre-feu parce que tout simplement gis nañ ni ailleurs appliquer nañu mesures yooyu et on a vu les résultats kenn nangu ko sénégalais yépp nous sommes dans une république nu sommes nés citoyens libres et nous sommes membre du souverain ku nekk da nga war a exercer pleinement ta liberté loolu la bëgg c'est notre souhait mais situation bi ñu nekk nii permettre ñu ko. école yi ñu tëj d'accord école yi ñu tëj mais waxuma d'accord damay tàccu di sant di gërëm nguur gi. Mhm. man dama d'accord ak nguur gi ci décision yi ñuy jël nii. dans pareille circonstance et discours bi may tenir nii dama jàpp ni képp comme am accès ci médias yi. Mhm. waxuma leader d'opinion waxuma leader politique. Mm. képp ko am accès ci médias yi nekk sénégalais. Mm-hmm. fa nga nekk da nga war a promouvoir vulgariser décision yi nguur gi jël. Mm-hmm. da nga ko war a soutenir ku nekk na ko tàmbalee ci sa kër. ñu génn ci kër gi yóbbu ko ci gox bi. génn ci gox bi yóbbu ko ci diwaan bi. Mm-hmm. génn ci diwaan bi mu wër réew mi yépp. parce que foofu la ñu toll tey soxna si xam nga tey ñu ngi wax ni ay lii adaptés pour hospitaliser. les mhm. malades du coronavirus. Sénégal yëpp. douze lañ ci am. douze bu ñu ko yokkee ba yokk trente. Mhm, mhm. mais léegi ñun amuñu moyen matériel. plateau technique pour xeex coronavirus. mais am nañu xam-xam. xel ak xalaat. buñ ko moytoo buñ ko moytoo bu nekkee am nañu ko yar ak teggin tey damaa jàpp ni man. képp kuy imam. sa rôle moo nekkoon ngay def ay xutba di ko envoyé par whatsapp ñin ñi di ko dégg pour ñin ñi toog ñin ñi yem hmm. képp kuy lider politique sa rôle tey moo nekkoon ngay def ay cassette via whatsapp wala facebook pour ñin ñi di ci jot nga leen jox ñu respecté consignes yi ku amul looy def ci biti toogal sa kër hmm. da ngay aar sa bopp aar ñi nga dëkkal hmm. aar Sénégal yëpp ma bambuwaat ko buñ bañee dund li Italie di dund. non bu ñu xalaat ni mun nañ dund li Italie di dund. duñ ko dund. Mm. malgré moyens yi ñu mm-hmm. nekk dans la même situation bi Italie nekk dañuy dund pire. Mm. parce que amuñu moyens yi dañuy jeex ko alors bu ñu yegg foofu bu ko kenn nangu. Mm-hmm. bu ko kenn nangu dama ne sénégalais bu nekk jàppal ni tey président Macky Sall yéen ñaara tolloo. ay àq ak yelleef ci réew mi mhm. la mu mën a toog di ko wax ñu jëfee ko yow fa nga dëkk amal taxawaay boobu taximan bi client bu duggee na ko sensibiliser tataay nit ñi buñ ci duggee nañ ko waxtaane nañu bàyyi dajaloo bi mhm. ba pare beneen bi mooy mhm. damay ñaan man xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp na ku nekk baamtuwaat ndigal bi nga xam ni nguur gi joxe na ko pour nit ñi toog seen kër sëñ Mbay si Abdou si Malick bu nekkee yaa ngi ñuy déglu dimbali ñu ci ngir yàlla. mais am na ñu ne bu ñëpp toogee seen kër fu ñuy jëlee lu ñu lekk ñi nga xam day dem euh, liggéey am lu ñu lekk journalièrement nous sommes dans un pays pauvre. d' accord naa. waaw am na loolu moo tax ñun suñu communication dañ ci boole. Mhm. la générosité de l' mhm. dañ ci boole les mesures d' accompagnement. première mesure d'accompagnement bi mhm. mooy nguuru Sénégal dafa war a annuler tout ce qui et impôt dans les produits alimentaires loolu mooy benn mhm. ñaareel bi nguuru Sénégal dafa war a suspendre mhm. tout de suite et maintenant facture courant yi ak facture ndox bi après bu ñu génnee ci crise bi dañ koy def sous forme de moratoire yokk ko ci facture yi ñun ñi dañ ko fay ñetteel bi mooy nguuru Sénégal dafa war a fay moitié salaire député yi fay moitié salaire ñi nekk au conseil des collectivités territoriales fay moitié salaire ñi nga xam ni ñoo nekk conseil économique ba pare fay moitié salaire les ministres la république bu ñu weesoo loolu tous les directeurs des entreprises publiques ak parapubliques yoo xam ni nguur gi moo fa nekk actionnaire majoritaire nañ leen fay moitié salaire ba pare na nañu lancé benn téléthon patriotique un sénégalais mille francs loolu seize milliards la bu ñu échoué ba échoué dinañ atteindre dix milliards. Hmm. parce que aussi foog ñun ñu jël ci li ñu yore ñu toog seen kër lu ñuy lekk. moom laa lay wax. Hmm. ñun li ñu yore hmm. foog ñu jël ci teg ko ci fond boobu mun nañ ci alimenter néew ji doole yi xam nga man mi lay wax taxes yi nekk ci nomenclature des prix euh, des denrées alimentaires. Euh, ak impôts yi état bi na ko retirer ba pare état bi na exiger na exiger actuellement trésor français bi ñu delloo ñu suñu avoir yi ñu fa am pour mun ko injecter dans l'économie ci foofu la ñu toll ba pare xalif généraux yi maa ngi ko doon wax sànq na ku nekk daf bataaxal na ku nekk wax ak say taalibe pour ñin ñi toog seen kër bu nekkee amuñu lu ñuy def. am na ñu naan corona amul. waaw xam nga thèse complotiste moom. <laughs> yàgg waaw moom laa lay wax mm. thèse complotiste. dafay mm. yàgg ci àdduna. xam nga franc-maçon yi dañu jommal nit ñi. Mm-hmm. <laughs> man mii dañ maa jommal. parce que da ngay wax franc-maçon te ko gis xamoo ko. Mm-hmm. corona bi noonu la mel virus la. ñoom ci thèse complotiste yooyu lañu ñu nekk mais loolu yëfu caaxaan la xanaa gisuñu nit ñiy dee. waaw. ku naan corona amul kay jàppal sa sa télé xool li xew Italie. non ñooñu waxtaan lañu ñu bëgg xam nga sénégalais. bon mm. comme dans tous les pays day am ñoo xam ne ñoom benn dix pour cent boo xam ne ils font beaucoup de bruit. Mm. mais li ñuy wax ça tient à rien. Mm-hmm. lu lu daan Chine daan France daan Italie jommal États-Unis mm-hmm. États-Unis man musuma xalaat ni am na du point de vue scientifique lu leen mën a jommal. Mm-hmm. mais États-Unis dañu jomme fi mu nekk. soxna si feebar bi am feebar bi mi ngi rey feebar bi dugg na Sénégal. Mhm. na nit ñi moytu ngir yàlla li lay war a soli sóoli. ayca euh, fi ñuy jeexalee euh, Mbodj nga wax ñu exactement euh, sànq sa côté boobu nga doon laal situation bii moo nar a am ci jamonoy coronavirus mais tamit Sénégal ban politique la mën a tëral pour tamit mu mu tane économiquement. juste euh, deux minutes ñu mën a tàggatoo. waaw dina métti ñu wax ñu mhm. deux minutes mais mhm. juste saluer peut-être en tant que propos mhm. le geste du gouvernement qui a réussi à collecter milliards. par euh, le biais de réaménagement budgétaire pour mmh. faire face euh, aux défis sanitaires qui s'imposent mhm. maanaam jot nañu am soixante-quatre milliards yoo xam ni pour euh, faire face corona pour jënd ay lal la comme ni ñu ko waxee mhm. wala amaanaa pour jënd ay matériel euh, médical mhm. mais bu loolu weesoo aussi euh, Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni dafa sooxe lool ci wàllum koom ba ba bourse de sécurité familiale mu ngi touché deux yaa ngi wax sànq naan bu confinement amee Sénégal yi fan la jëlee lu ñu jàpp naa ni hormis 64 mm-hmm. milliards yooyu noonu mm-hmm. war nañu defaat ay recoupement budgétaire yoo xam ni mm-hmm. dinañ mën génne au moins benn 100 milliards wala 200 milliards boo xam ni dañ koy jagleel famille yi nga xam ne ñoo doon jot euh, bourse de sécurité bourse yi euh, duñ ko def ay tranches vingt cinq mille comme ni ñu ko doon defee bien contraire dañu la jox loo xam ne c'est assez conséquent pour que ñu mën ci def ay approvisionnement euh, mën a toog seen kër yi. Mm. parce que bu dul dara aussi il faut le rappeler ANSD wax wax na ko fan yii passé cinquante six virgule sept pour cent des ménages sénégalais se considèrent comme étant extrêmement pauvres. maanaam que ñaari famille sénégalais yoo jël. Mm-hmm. benn beeg ak tuuti lu si topp jàpp na ne moom amul dara furaas. Mhm. donc boo jógee ci mesure sociale boobu noonu. Mhm. il faut il faudra aussi que ñu am ay solution sanitaire yu performant ñu ngi si yoon bi nee nañ 64 milliards jël nañ ko teg ko euh, pour loolu mais l' après corona économiquement parlant lan la war a nekk aussi. Mhm, gis nañ ni ci dëkk yu mag yi lu mel ni Europe boo xoolee ba xool la banque centrale européenne génnee na ci 740 milliards d' euros. mettre ko euh, la disposition des états pour. poñ yii nii maanaam soutien à la demande. Mm-hmm. relance économique euh, te li ëpp ci sept cent quarante milliards d'euros yooyu noonu c'est à taux zéro. Mm-hmm. Euh, dama koy rejoindre ci li mu wax peut-être. Euh, waaw maanaam bi mu naan il est temps que ñu revoir fonds yi nga xam ni. Euh, amoon nañ ko France mais fonds yooyu noonu rapatrier nañ ko parce que tey ñu ngi ñu ngi ci suñuy réserve mm. clause de divorce bi signé nañ ko ak France ba fonds yi ñëwaat mm. donc bu ñu jógee ci loolu noonu état du Sénégal war na dans un premier temps au niveau national jéem a benn fonds soutien ci secteur bi nga xam ne mooy secteur bi muy gën a touché ci économie mooy le secteur touristique mm. parce que sànq nee naa la 7 te ñoom seen activité actuellement ñëpp toog ñu mën décider def leen lan la ñu mën def euh, lan la ñu mën décider en amont pour que euh, soutien de la demande am pour que relance économique am mais mais pour que aussi ay orientation stratégique ñu mën ko def ci secteur ci bépp secteur boo xam ni euh, crise bi da koy laal pour cela réserve yi il faut ñu toog ne nous avons tant de réserves est-ce qu'on va utiliser li ñu woowee en économie la trappe liquidité maanaam le fait de le fait d'augmenter le volume monétaire pour qu'on puisse euh, allouer des fonds aux États pour que États yooyu noonu suivant des secteurs stratégiques puissent tenir une politique économique qui va arranger nos maigres économies bu ñu jógee ci loolu aussi euh, hormis euh, asafurla na laa koy waxatee sax politique monétaire boobu noonu dañ koy dañ koy adoubé ak lu ñuy woowee une et intelligente d'investissement comment. Euh, waxtu bi jeex na de. jënd beeg. Mhm. Mhm. waxtu bi dafa jeex. d' accord may ma tuddee juste jënd beeg jaay bi. Mhm. sànq ci sama euh, ci ci ci bi may commencé wax nee naa la moo nekk la base de l' donc jënd beeg jaay boobu noonu dafa am solo lool pour pour ni économie doxee donc. il est temps que bu ñu jógee euh, bu ñuy xalaat augmenter volume monétaire ñu caytuwaale ñun en Afrique de l'Ouest yan mesure la ñu mën a jël pour. teg des industries par substitution aux importations jéemoon nañ ko fi dans les années quatre-vingt li ñu à l'époque ISI mm. industrie par substitution aux importations mooy les industries du Cap-Vert au Sénégal mm-hmm. euh, Côte d'Ivoire tegoon na industries ba sax jamono jonoon bi AOF di soog a a tas ma dix wala euh, boog seen exportation demoon na ba toll ci ou PIB donc tey il est temps que ñu toog suivant des euh, des avantages comparatifs ñu xalaat ne xaalis bi mu ngi fi certes dafa nar dafa nar a impacter ci le coût de la monnaie dafa nar a impacter ci la ci ci la valeur de la monnaie mais bu ñu jël di ko injecté dans la zone ouest africaine yan mesure lañ ko mën a ko mën a euh, voilà ñu koy remercier bu baax a baax li euh, moo ñu xooj Mouhamadou Mbodj nekk agroéconomiste ak tamit kii lee di Cheikh Sadibou Diop euh, bu mouvement alerte ñu doon waxtaane lépp lu soxal coronavirus di remercier tamit suñu suñu virologue bi nga xamante ne dégg ngeen intervention bi mu amal ci coronavirus di El Hadji Seydou Mbaye virologue basé aux États-Unis ñu leen di remercier tamit yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi 10h jàpp 11h Léon Paul Mendy ñu koy euh, remercier ci réalisation bi Mamadou Diaw Diallo ci technique bi émission bi mën ngeen ko suivraat encore ci suñu chaîne euh, YouTube euh, Rewmi officiel mais tamit ci suñu portail internet www.rewmi.com Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak yeneen invité jaa ngeen